PAP. Uh, of course, Honorable Ibrahim Tabora Mane, moom moo nekk suñu guest this morning ñu war a discuss ak moom as always uh, gis-gisam ci réew mi ak surtout fu yëf yi toll right now uh, moom tamit dina ci ñëw bu baax nañ waxtaan ak moom uh, ci ci loolu ak taxawaayam surtout ci yëfi parti bi ak yeneen honorable once again mu doon mbégte. ñu dalal la ci programme bi la of course doo doo fi gan. Uh, ñëw nga fi ñëwati fi soo buñ la fi amaatee mbégte la loolu tamit dafay wane ne uh, saa yi la fi amee waxtaan bi dafay doon lu am solo uh, ñu bàyyi la rek nga nuyoo Gambien si ñu lay seetaan right now ci biir réew mi ak ci diaspora bi. salaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatuhu. waaleykum salaam. di am mbégte bu baax a baax pour mm. ñëwaat si programme bi. comme ni nga ko waxee rek mm-hmm. fii moom suma place la. parce que miin naa di ñëw fii. di kontaan dalal bi. Mm-hmm. Eh, di nuyu eh, déglukat yi ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan programme bi di ko follow eh, inside ak outside di di Gambia mm-hmm. di sant yàlla bu baax a baax pour mun a fekkee teew bés bi si wér-gu-yaram Eh, di nuyu ñëpp daal seen tur ak seen sant. waaw waaw comme ni nga ko waxee rek. Mhm. Eh, lii moom is very important because ñun we are partners. absolutely I mean eh, politicians yi ak ñi nga xam ne they are in the in the media. Mhm. I mean ñun yëpp suñ liggéey lu mu nekk daal mooy na pour mostly pour inform citizens yi. Mhm. enlighten leen awaken leen entertainment tam bokk na si waaye pour spécialiste soo ñëwee suñu fànna pour won leen réew mi ni mu mel ak political situation economic situation I mean social situation. security situation. yëpp daal so ñun ñëpp eh, li ñu bugg rek mooy comme réew mi daal mu mm-hmm. mun a am eh, jëm kanam. I mean eh, dafa mel ne daal te loolu mënuñ koo def foog ñu inform nit ñi. Mm-hmm. parce que nit ñi ñooy di number one resources. Mm-hmm. of of any country. so su nekkee ne nit yi they are very well informed. I mean xam nañ seen right xam nañ seen warugal. I mean then dinañ mun a make good decisions. yoo xam ne dina yóbbu réew mi si si kanam. so di am mbégte di leen nuyu mm-hmm. uh, bu baax a baax. jërëjëf thank you. thank you so much uh, honorable uh, ñun tamit am mbégte dalalaat la ci programme bi xam naa ne danañ dugg ci waxtaan bi straight maanaam soo ñëpp danañ xaar pour ñu laajte la. maybe mm-hmm. of course not maybe but sa gis-gis si coow bu am right now président bi kàddu yi mu wax jëmee ko ci opposition bi te nga bokk ci opposition bi waaye mm-hmm. gis nañ loom li tension bi surtout diggante UDP ak NP but before then. first question bi mooy. sa gis-gis ci réew mi. Mhm. bi nga fi doon ñëw. Mhm. Euh, few months back am na noo gisee woon réew bi ndax diggante boobu ak tey am na lu ci change in terms of taxawaay nguur gi jëmee ko ci askan bi. Um, euh, man daal euh, li ma waxoon te si loolu laa nekk benn rek mm. dafa mel ni rek day gën a yokk rek. ci ne mm. nguur bi dafa féel. man fa laa taxawoon. waaw dama ne nguur bi nguur bi dafa féel. waaw eh, te si suma gis-gis ak suma analysis mooy ne réew mi mm-hmm. direction bi mooy dem. Mm-hmm. dafa mel ne dañ diréel dañ bàyyi yoon bi soo nguur bi ni moo doxalinee ak yoon bu mu jël. Mhm. yoon boobu moo mënut a salvé ci euh, contre bi. Mhm. mooy ne mënut a génnee réew mi pour ñu àgg foo xam ne euh, fa lañ bëgg a egg. Mhm. mooy ne pour ñu gis jëm kanam. amin si réew mi suñuy dundin. amin parce que fana ba mu te xelaat man gis naa gestu naa seet naa secteurs yëpp. gisuma benn secteur boo xam ne nguur bi mu ngi si bokk wala mu ngi si liit. boo xam ne gis naa si improvement mm. one li ma wax mooy ne loo xam ne is very critical mm-hmm. soo ñëwee si economic sector bi gisuñ any improvement at all noonu whatsoever mm-hmm. parce que bagage yi benn te ñu ngi gën a seer mm-hmm. amin am am yi ñu ngi gën a néew so soo ñëwee si luwaas bi ñu ngi ko doon joytu luwaas bi benn tey di seen problème la mu ngi gën a yokk amin problème si yaa ngi bëri boo demee si lopitaan yaagut not uh, very recently ñu ngi dégg revelations by uh, ak docteur Diagne so ñu ngi def that ping pong game di blamante waaye the bottom line is li moo wone mooy ne there is a lot of corruption mm-hmm. within the health sector mm. so soo demee security bi mm-hmm. I mean eh, there is a lot of insecurity every time yaa ngi dégg am na ku ñu rey fii nit yaa mm-hmm. ngi de left and eh, right drugs bi is is rampant in in in the country mm. so nga jëlee ko noonu ngay ñëw ba latest events yi nga xam ne xew nañ um, nga ñëw ba OIC summit bi nga gis loolu man wax naa si dem naa Athènes naa mhm. ma ne as ah, a citizen bu ñu la invité te yaa ngi war a am gan da nga leen war a dalal mhm. dal bu baax won leen this is a good country eh, nit ñu baax ñoo fi nekk de di decent people mhm. waaye bàyyi an laaj ma ne suñ gan yi demee amen suñ ñëwee bi si soo dem di best face kanam bu rafet entertain leen welcome leen waaye bu ñu demee nag ñu ni neen war nañoo mën a toog waxante dëgga te li ma wax mooy ne it was a total failure mm. loolu is another issue okay. I mean uh, whether we'll get to that yeah. or not then nga ñëw si ferry problème bi mm. it's a loolu moom it's a joke man li may wax falaay laay nekk rek ne suñ government dañ dañoo caaxaan hmm. they are not serious about development uh, they care free about uh, citizens yi hmm. so ñoom ni ñoo doxali ne man yaakaaroon naa ne at least wax yi niñ bare ñun ñëpp ñu nekkee di wax di complain di joytu te di saa citizens ñi nga xam ne day genuine mm-hmm. du ne because man mun naa wax sax ñu foog ne ok because he's a politician waaye yéen you guys are neutral you guys are impartial yéen you don't support any opposition or any government because dañoo gis ñun man damay ñëw fii ngeen welcome ma mhm. te any other opposition party bu fi ñëw di same welcome lañ day am te nguur bi bu ñëwee tamit dañoo am di same treatment mhm. so everybody dafa amee fair ak decent uh, treatment so su nekkee ne ñun ñëpp ñii ñëw opposition si wala amen ordinary citizens si mhm. ñu ngay jooytu the same thing dañ yaakaaroon naa ne nguur bi at least war naa toog reflect ne ok xaaral ñu jël a break ñu change suñ cause bi parce que cause bi ñoo jël is not is not working things yi nga highlight. Mm-hmm. from security economy to the OIC eh, ñàkk a progress bu ci am lan nga ko attribute to the government. Mm-hmm. is it about the uh, leadership. is about oh. the ko attribute. yes yes it's absolutely it's about uh, leadership. te man uh, blame bi squarely dama ko blame on the head of state. Um, because moom is the is the leader. moom mooy choose ñi mooy liggéeyal. amin dafa mel ne rek soo buggee amin même sooy dem soo buggee tabax néeg yooyu select sa contractors pour ñu liggéeyal la yow nga nekk supervisor mhm. ngay seet liggéey bi nga wax leen man nii laa ko bëggee suñ ko defut noonu nga génnee leen mhm. indi ñoo xam ne dinañ ko mën a def waaye su nekkee ne da nga surround sa boppa with people who are incompetent wala majority of them they are very corrupt te ñu ngee def corrupt activities yaa ngi koo déggee you don't do anything doo jël benn step I mean because corruption moom every time is happening mm. every day is everywhere is rampant mm. so niiduloo sax pour dem to evidence yu bari sax. yoo yoo xam ne comme auditeurs yi ñu def wala parce que ñu ngay dégg area eh, councils. local government. ñu ngay dégg xam nga loolu ku ko xam nga ne corruption la. te dama ne nit ñi gis nga corruption bi indi area council soo foogee ne dafa bari. Mm. So deme to the central government di nga yéemu. Yeah, and the, talking about the commission, local government, yeah. President Bimo initiated that commission, yep. mm -hmm. and Lord because of Yum Degon Chi Council. Isn't yes. that Lord not a form of poor corruption, Mota Mudef Lulu, put Tamil in Yiham, Paskin xamuñu lan moo nekk di yow dañ doon dégga dégga mm-hmm. but commission bi am na lu mu feeñal lu bari so loolu mun nga ci mais bi wax ne président bi moo am taxawaay boobu I think that should be a plus for him well in fact eh, xam nga bi mu commencé commission man eh, waxoon naa ne I hope the timing. then because that was before just before election. timing bi laa questionoon. because waxoon naa ne. pour ñu set a commission ñun dañ ko welcome because corruption mu ngee xew war nañ ko mën a toppa so ñu ne timing bi dañ waroon a xaar ba after the election because dinañ foog ne witch hunt waaw essentiel time boobu nit yi ñu ngi foogoon ne mayor of KMC lañ doon. Mm. Uh, jéem a target. exactly ñu ne after election then they waaye pour ñu def ko it's a good initiative waaye li xew mooy ne. Mm-hmm. government bi day that political will is not there. parce que ñi nga xam ne ñu ngi def corrupt activities dara duy xew. dégg nañ indi petroleum industry dara xewut. Mm. Eh, si port bi dara xewut. Covid funds yi dara dara xewut te I can tell you secteur boo dem di fa fekk corruption. is is the game. what is the role of opposition ci ci loolu ci mel noonu ci réew. parce que tamit yéen a ngi ah. mm-hmm. in some countries at mm-hmm. some point da opposition bi take a stand. Yeah. if there's alleged malpractices mhm. wala corruption in mhm. certain government institution mhm. take a stand on behalf of the public pour gis ne justice mu feeñ ñi xam lan moo xew but in this content dañu wane opposition bi mais bi media bi lañ koo bàyyee wala ñu bàyyi nit ñi di wax ba taxawaay boobu est tamit opposition bi def opposition I think what they can do uh, part of it mooy ne di génn di di di wone di condemn di naxarlu di informe nit ñi pour ñu xam ne lii mooy xew then the, the other thing tamit war nañoo try pour collect evidence yeah. because it's not just about saying ne corruption mu ngee xew rek waaye trial xam nga am na loo xam ne soo ko waxee layman dinañ understand ne non lii is fishy lii something is not right because su nekkee ne mun naa gis nit boo xam ne comme mu ngi am am twenty thousand dollars a month mm-hmm. exemple twenty thousand dollars a month year bi is loolu lañ koy fay mm-hmm. two years mu nekk a million let's say example four hundred and eighty million Koko suñ gisee ne samp na jënd na kër moto boo xam ne ëpp na half a million mm-hmm. mu am kër boo xam ne na 3 million or 5 million dollars mm-hmm. obviously you know something is mm-hmm. is is wrong waaye the way the society is soo génnee nga ne kii is corrupt tabax na néeg bi 5 5 million te mu ngi amee moto more than half a million te li moo make in two years is less than half a million te fa la war a dundee loolu fan nga ko jëlee xam nga koo wax common sense dina xam ne non lii something is wrong am na fu mu amee xaalis foo xam ne is not right waaye xam nga soo demee di court system is very funny. Mm-hmm. because nañ la wax ne you need evidence. waaw exactly foog nga proof. waaw nguur gi sax loolu la ñu wax nit ne waaye evidence amul and all that. waaye comme soo demee auditors yi fi ñu fi identify ne mm. lii corruption happen na fii. waaw soo demee indi health sector yoo xam ne wax nañ ne fonds yi ni ñu ko usee it's not right ñu ngi see benefit ñoom sax xam nga ñu ngi misappropriate fonds uh, mm. loolu nguur warutoon a xaar sax opposition génn pour di ko wax sax ñoom ñu waroon a teg dem address the situation so ñun luñ luñ mën a def first mooy ne pour address the issue waaye in other advanced countries yoo xam nit yi opposition ne am nañ ñoom sax dinañ initier lawsuit dem jéem a follow ñooñu pour def ko a court case mm-hmm. unfortunately nag indi the Gambia di opposition ñu bëri àggaguñ to that level because loolu yëpp dafa laajte a lot of resources a lot of time mm. a lot of energy and then you need a lot of evidence te evidence bi pour nga am ko ñu bëri I mean they won't be forthcoming pour jox la ko parce que li nga war a def mooy comme nga ne health sector ñu ngi spend let's say 10 million ni ko dugalee is not right. nga ne da nga evidence. fooy dem pour nga initier commencer pour am evidence would be a problem would be a very big challenge so opposition bi xam naa ne they don't go that far just like the journalist rek fi mu nekk nii comme nga dégg ne lii xew na soo demee pour nga bëgg a that information. Mm-hmm. pour ñu provide la nga mun a am that evidence. Mm-hmm. Mm-hmm. mun koo wone. Mm. ko doo ko mun a am. Uh, despite am nañ di access information law. bi nga xamante ne mu léegi léeg sax da ngaa bëgg pour interview ay ay nit comme soo may invité man ma against government against government léegi-léegi am na ñoo xam ne soo leen invité ñoom dañoo yaakaar ne ah kii mu ngi bàyyi ñii dis plateforme dañ bëgg pour you know pour ñuy wax euh, lu neex nguur léegi-léegi nga kol leen sax pour bëgg ñoo ñëw sax dafa dafa dafa jafe. Mm. so it's it's a tough time waaye li ñu war a def for a start mooy ne di expose constantly always. dañu war a inform nit ñi always because the more ñuy put pressure on them the more it ñuy think nañ xam ne lu ñu def rek nit yi dinañ ko xam te bu nekkut tey man gëm naa ne ëllëg they will pay for it. Because what happened is, so ñu fare ak nguur gi tamit because in most cases dañoo wax ne ok opposition bi dañoo wax ne corruption corruption. Mm-hmm. Mm-hmm. but na gaa yi génne evidence. and you mm-hmm. say difficult pour opposition bi am. but is it not tamit your responsibility. su fekkee jàpp ngeen ne nit def na lu lu lu jaaduwul. wala something that is against law wala corruption. you go you know beyond do your utmost best pour am. you know evidences mun a toog mm-hmm. wane ko mm-hmm. because in some countries what is happening ba nit ñi xam ne lii tamit nekku wax kese parce que the all same story of mm-hmm. politique moom moo am bu boobaa est-ce que lu lu ñu nekk di gis nii rek mooy continuer um, I I agree to a point waaye li xew mooy li may wax pour am evidence bi will be very very difficult especially as an uh, as an opposition you have to understand that being an opposition Nyingadam pour jël fa evidence. Mhm. They are employed by the government. Yeah, but you, if you are strategic enough, am na ñuy am. They are soog ñuy am. Yeah. So time tamit about as a politician foog foog politician yi tamit. At some point ñu gën a ñu gën a inventive gonna strategist. I agree. Because this all same politician system bu fekkee ne boobu la ñoo continuer And in some countries, if example. ñu ñu ñu ñu xool li xew yeneen réew this what they do because at some point dafa yomba tamit nga toog ci télé wala rajo corruption corruption rek di wax ne ñu corruption te mënuloo teg dara ci table bi non dafa fi failure bi nekk waaw non fi failure bi nekk mooy there is not that political will give an example bi docteur Sallah waxee corruption in the health sector waaw génnewut evidence dafa wax waaw ne li xew waaye génnoot evidence boo xam ne one can see. waaw ñoom ñaar dañ jihaad waaw ñoom ñaar ñu wax waaye government li mu def mooy dafa act right away. waaw suspend leen. Mm-hmm. soo government su nekkoon ne government is responsible. li mu waroon a def mooy ne suñu waxee ne there is corruption here. Mm-hmm. te ñu mun koo explain. Mm-hmm. ba make sense. loolu is reasonable enough. ok pour ñu waroon nañoo jël action waroon nañoo investigate waroon nañoo follow te warut a nekk investigation boo xam ne. cosmetics rek la pour nax nit ñi rek. pour ne nit yi mën a noppi rek nga ne waa dañoo def investigation. I mean after a month two nit yi fàtte nañ loolu then you move on life continues te loolu moo nekk di xew. so pour garder evidence bi nag is a is a challenge. waaye I agree. Mm. ne ñu nit eh, opposition si I mean war nañoo try to be proactive to get as much information as possible and eh, mind you am na so many informations tam yoo xam ne. Mm-hmm. xam naa ne number of eh, opposition ñu leen am and then they they put them on the na ñoo xam ne dañ dee leak some information. waaye soo génnee information rek dinañ xam ne soos bi kii la oo kii. <laughs> te te war demee noonu. all right Mon Niang euh, dégg nga ko ci wàllu économie bi ak yi mu wax nii yëpp. am na solo waaw waaw dina jafe nag balaa maa ñëw si li ma ko bëgg a laaj sax. pour am information boobu. dama xam ne si fekkee am nañu loo loo may pour ñu am ko mooy sax media te yow right now ni am nga ne am na fu bari boo fa demee sax duñ la liggéeyanti di first of all da nga am appointment leen la wax. moo lan loolu pour dem fa am information. information bi moo ñañ. ku investigate tamit. ay non su fekkee da koy def it's not normal laajte yi ngay def de. ay non there's a way yi ngay defee investigation there's a way yi ngay am. xam nga there's a way loolu amul problème. but si government agent bu nga ko war a amee. waaw even the law is there but duñ la ko jox. mun ngaa jaar baag wee nga am ko. loolu xam naa mun na nekk. so loolu su fekkee ne si ku mu gën a yelloo mënu ko am. so naka la ko opposition bi di amee xam nga fu muy amee. dina am government agency yu nga xam ne du ñàkk dina leak seen information because may bi ñu ngi si nguuru ànd nañu nguur di jox opposition loolu moo day am waaye loolu mosli nguur gu dee waaj dem si la day am nguur gu nga xam ne ni moom dem na ñëw na dafaa jeexal si la information yi bëri di leak because seen agency ñu fa nekk government ñu fa nekk ñoom ñoo dee leak jox ko presse media oo ñu jox ko some opposition ku nga xam ne ni gëm nañ ne war na mën a fa eh, génnee lii pour def sa propre investigation am ko trou di ku ko amee dafa jafeñ in this country because ñoom tam dañ koy hide because seen problème mun fa faa nekk xam nga lu la wax ne am nga tuuma am correction si docteur Diagne ak Fali Fall yi ñuy wax sàlla yi xam nga daf xam ne is something happen ta yow yag ngaa dégg ne kër googu corruption mu fa bu ko ilimaan ji sax moo tax a wax moo ko njëkk a wa waaw gis nga def nii boobu leen ko waroon def mm-hmm. yow kër nga ne suma kër dafa am corruption te yow yaa war a régler kër gi yow dama laa wax na yow kon yaay ilimaani corruption bi waaw dañ ko fa bàyyi national assembly la ko waxee nothing happen ba tey nag ay ponkal yi nga am ne ni man wax neen ma all these people seen salary naka la dafa ñaaw ak tukki yi dem ak dikk duy toog mm-hmm. and neen ko fi am na ko am everything evidence yes luñ leen fay seen boppa tukki yi dem ak ñëw mm-hmm. xaalis yi su jeex soo moo tax ma ne ko kon lii tax ñu suspend leen te góob ñu gaaw ñu waat te it ministre moo ko moo leen fa indi génnee na ku bokkul si kabudum indi leen fa ñoom xam nga ne we have so many information si si l'hôpital waaye du from the ministry ñu ko de jox bot ñi fay liggéey te ñoo ñoo ko dund ñoo ko xam so something like that nga ko mun a amee hmm. te docteur jaañ boobu noonu ku ko fa indi sama Samate di ministre te ministre boobu moo taxawoon ne suma kër mu ngi am corruption léegi kooku mu indi fa ñoo jiinante corruption ba ñu yebal leen ne leen dem leen toog noppal so what about the imam the minister himself so du régler as far as mu fa loolu maa la ko wax. léegi fu maa ñëw si économie mu ngi fa foofu du correct. moom dafa waxoon ne tamit. waaw bu fàtte ne dafa woon dafa defoon dafa dinaa sonn ne li doon am foofu pour nit xam ne. am na ñuy jéem a def dara moom daf ko waxoon pour bugg defar gars yi xam ko ñu defar waaye benn yoon la ko wax ci National Assembly bi foofu sax blé blé nañ parlement bi parce que waroon nañoo jëlee action buñ ko waxee foofu ci fifty legislature bi waaye dara xewut ko génnee am nañu ko fay xeex naa nga waaye moom ñu mu indi tey ñoo jiinante demu bañ daxalet exactement ba bañ teg leen ne leen dem leen. soo loolu am na lu moo nuroo. of course Amadou. ok dina am yes soo foog nga bàyyi loolu mu wokk. te yow am nga some information yoo fa am am ne doxalin bi baaxul si seen credit union. credit union staff su bëri seen xaalis àggul bu ñu waxee ñu dañ ko leb. Amadou loolu is na gars dañ dem si banque ñu leen ñu ko waroon a yóbbu ñu ne dañ ko leb leb bu borom yëgul loolu du leb. te yooyu yëpp di information baby is around alright léegi ñu ñëw man fu ma ko laajte mooy ne eh, moom xam-xamam màcc na si koom-koom c'est fan yi fa fan naa eh, am na AFM la wala waaw am na lu ñu génnee so naka nga gisee loolu waaw bu am ak ak situation bu réew mi nekk yes non noonu naka nga gisee waaw waaw eh, pour 4.9 percent to 5.3 percent of growth. waaw GDP. non non loolu waxin la rek comme suñ growth bi. waaw the gis naa ko about close to five percent. yeah of uh, GDP waaye loolu moom xam nga uh, growth GDP dafa mel ne comme ñu ngi am hundred ñu ne yokk na five mu nekk hundred and five waaw uh, te soo seetee GDP bi is is in the billions waaye li xew mooy ne mm-hmm. loolu dafa few people la dafa mel ne five percent five percent You make let's say 20 percent or or you make 50 percent sir, mm-hmm. growth then 95 percent see, ñoom they make nothing ñu at the same level. Mm-hmm. so nga average correct? rek nga am 5 percent Why loolu sax is uh, I believe is uh, is is inflated is inflated uh, growth boobu amuñ because later amunko moine ko li am solo moine. ne. waaw nation bi grow na you grow You yow nit ki. you're nit Lolu, make any sense they société 90 percent of Gambians. vrai Gambians growing. dara. xayma ko sa boppa rek man ma seet ko suma boppa ak yow ak ak ñi nga xam sa household. ak sa community nga seet leen. ndax grow nañ by 5 percent. then nga seet ñi nga they are rich people ñi nga xam nyungsi ñu si government on top. xam nga sa growth bi bul seet ne rek suma salary bi rek. sa overall situation naka la development. you know soo seetee nga seet throughout the world xam nga li xew day seen economic system boo xam ne ñu ngi ko am. Mm-hmm. te so long as ñun we are married to that. dañoo fail. I was going to say what is the yu mel noonu our growth. connection xam nga IMF liñ dee def liñ dee wax ne inflation la is not realistic. inflation bi ñu doon jox is not realistic. growth bi ñu dee jox as a report is not realistic. dafa mekk nekk na rek ñi nekk ci kaw a few of them ñoom ñoo nekk di make the maximum benefit waaye the nation itself. mooy di average people mm. grow growing by that amuñ any growth at in fact léegi-léeg sax dañoo am contraction mooy ne dañuy wàññeeku mm. dafaa nekk ay negative growth te man dama believe ne 70 percent of Gambians dañ am a negative growth mm, waaw te negative growth boobu mooy ne mm-hmm. yow ñu ngi lay fay 5000 dalasis mm-hmm. out of 5000 dalasis ngay fay sa luwaas 2500 mm-hmm. ngay jënd saako maalo 2000 at least 4500 dem na now at bi ñëw borom kër gi ne la luwaas bi is no more two thousand five hundred is three thousand five hundred saako maalo bi yaa ngi ko doon jënd ñu ne la is no more two thousand yow obviously yow da am contraction because li a afford with your five thousand dollars mënatuloo li mu doon jar I mean last year léegi tey mu ngay jar ten eh, six thousand wala seven waaw wala seven mm. yow da am da nga dem daawoon soo gisee nit ñu ngay joytu ne dëkk bi dafa métti mooy ne average Gambians si dañ am a negative growth so ñi ko make up mooy few business people ak ñi nga xam ne ñu ngi si government ñu ngee travel ñu ngee am per diems ñu ngee am allowances ñu ngee sàcc xaalis yi and that is the reality ñu ngee sàcc xaalis bi corruption bi ñooy wax ñoom ñoo nekk di grow so ñoom lañoo ñoo gis rek dem den IMF report yi tamit ñoom fan nga dañ koy inflate rek fu ñu dee yooyu eh, xam nga dañoo dem you know these are figures hmm. man ak yow ñooy toog ne central bank joxe na report I mean eh, suñ economic eh, sector finance ministry joxe na this report and they want to make it nice hmm. I mean te xam nga ñu ngi liggéey ak uh, world uh, uh, IMF yi ak world bank yi and war li may wax mooy ne suñ economic system bi nu mel mm-hmm. so long as loolu lañ accept ñun ñu continue with that. Mm-hmm. dañooy fail. why is it that some governments mostly in Africa then they celebrate something like this IMF give na good figure. yes World Bank approve na this. and they, they, happy. Seemingly and realistically, mm-hmm. comme noo ko waxee, yeah. is something different on the ground. You know, you know xam nga li xew gis nga ñun suñ suñ educated suñ supposedly wow. educated people a lot of them man they are total failure for Africa gis nga Africa dem gannaawam yëpp lu si gën a bëri is leadership ak so called educated people ñi nga xam ne once bu ñëwee dem bañ ne they are educated mhm. li ñuy xalaat mooy na rek ñoom naka la ñoo grow seen bopp waaye they don't care about the masses because foog nañ ne they are too big than the foog nañ ni ñoo gën dañ the masses they start acting like the west ni mu ñoo seete xam nga economic system bi ni ñu ko setopee mooy ne bi ñu defee Bretton Woods agreement bi ñu setopee IMF yi ak World Bank yi mhm. ak United Nations yëpp mooy ne world bi dañ ko setop in such a way ne mooy nekk on top always mhm. ñoom dee di dee dee di billion. people ñoo xam ne dee di golden lañ dee wax billion. Mm-hmm. mooy di West America England France Germany ñoom ñooy nekk on ñoo control everything. ñoom ñooy decide mm-hmm. Mm-hmm. ñoo ñëw Cup so on top so economic system bi ni ñu ko setupee ñun dañu dem World Bank IMF ñu ngay jël boor xam nga ne am na certain countries. yoo xam ne liñ dee fay interest. ina ya léegi-léegi. liñ dee mun a fay duñ dee mun a fay seen interest si seen bor yi. bor yi nga xam ne yaa ngi ko jël moo daan

te du du am 8 de gis nga nga jël 1 million dollars ñu ne la 8 percent. den 1 million dollars boobu time boobu yaa ngi doon jël 40 dollars. Mm-hmm. nga doon jëndee a dollar. a tey yaa ngay jëndee dollar bi 70. soo xam nga 1 million boobu dafa double almost. bor bi dafa double. Mm-hmm. soo ñun li xew mooy ne dañ gëmut suñ boppa as Africans as Africans is te suñ jiit yi dañoo think because ñi nga xam ne dañ dem man I went through it. te xam nga. foog nga foog nga clean up danga dem si western system bi ñu jox la western education jox la this big economic theories believe me ma ngi laa wax nii gis nga ñi nga xam ne ñu ne dañ xarañ si jànga ñu am all these western theories su ñëwee rëy la ak wax yu rëy ak terms yoo xam ne doo ko mën a comprehend sax mm-hmm. suñ liggéey si government du ñu mën a def dara seetla la fuñ mën a liggéey rek dañoo nekk indi government di sokk di système waaye mënuñoo taxawal seen bopp même tati by tati tool sax duñ ko mën a manage it's very sad it's very unfortunate so mi xew mooy ne western education bi dañ ñu jàngal ne western system bi ni mu ko setopee nga am a few elites so ñoom banque si dañoo nekk di communiquer ak ñooñu. Mhm. because ñoom dañ xam ne IMF World Bank léegi-léegi ngay nekk di liggéey sa central bank mu yàgg ñu jël la connect la génne la foofu yóbbu la. ñu ne kii am na international point mu ngi IMF mu ngi World Bank mu ADB so the whole system bu ñu la waxee ADB nga ne African Development Bank kan moo ko moom African si ñoo ko moom because ñu ne Africa. Mhm. wala ñu ne Islamic Development nga fekk ne shareholder si si gannaaw Britain mu ngi fa America mu fa Japan mu ngi boo xam ne dañ ko set up trap boo xam ne ñun munuñ see génn xanaa ñu dem comme suñ boppa ñu óolu suñ boppa xam nga ñun li xew mooy ne ñun African situation bi is very sad yu lu nga seet suñ leadership yi mm-hmm. nga seet di leadership of western countries nga seet African leaders bu toog mm-hmm. xoolal rek just suñ fii ñun nga ñëw fii suñ Gambia ñu amee président former président pare munta toog in the country nga dem suñ néeboo Sénégal former président pare munta toog England Boris Johnson mu ngi fa mu ngi toog Obama mu ngi America mu ngi toog before that Bush mu fa mu ngi toog seen country te su ñooy sàcca lu ñooy sàcca dañ koy emale seen own country duñ ko génnee waaye ñun african country african leaders nga seet leen ñu ngi yóbbu seen xaalis si France ñu ngi England ñu ngi Dubai ameen ñu ngi Morocco ameen ñu ngi fële ñu ngi <laughs> xam nga même xam nga ñoom yëpp they are the same because seen mentalité mooy soo yow soo ñëwee ba nekk président rek waaw xam nga xam nga ma gis nga xam nga xam nga xam xam nga lan mooy ku ku ku stupid. Mm-hmm. they are very stupid. I'll tell you that they are very very stupid. these African leaders most of them mooy lan yow ñu jël la ñu ngi lay fay I'll give you an example yow ñu jël la ñu jël ñu nekk ñu def la ay président. Mm-hmm. ñu ngi lay fay let's say ak sa allowances benefits say bi travel. let's say average five hundred thousand. Mm-hmm. suñ laa fay five hundred thousand. nga make five hundred thousand a month. amee ne foo société yow ngay liggéey doo fay courant doo fay ndox. amul niiduloo fuel. Mhm. health care niiduloo ko yow xaalis boobu soo buggee sax at least 50 percent of that war nga ko mën a save soo buggee bul may kenn bul dimbale kenn. ngay denc sa xaalis nga liggéey boo ritaayee tamit ñu war laa jox bénéfice boo xam ne it's okay. Mhm. yow kenn warut laa kenn warut a wax ne yow you are corrupt kon. bu nekkee ne gore nga dégg dégg dégg dégg. Mhm. ba nga xelaat sa age yaa ngi boori you have less than I mean. twenty years pour nekka ko xam ne at least yaa ngi am kàttan mun ngaa def loo ne waaye twenty years bu la desee sa life moom trial nga def loo xam ne lu baax la ba ñi la eh, fal duñ la gën a duñ la gën a gore. duñ la gën a gore léegi yeah interesting point. yeah xam naa li nga wax ne eh, am am na solo trop. waaw dama. Mhm. waaw so. balaa balaa ngaa dugg ci politique bi. waaw pour affaire yi dama bëggoon a ñëw moom. si uh-huh. wala ma may la nga def dama bëgg balaa politique ma jeexal ak moom si économie bi. Ah, mu ngi des hmm. a jot. waaw recent ni ñu ngi doon jooy affaire CFA bi. waaw euh, économie bu kali tamit ñu bari jàppoon loolu dafa sonal ñu bari ci ci ci Gambien si. Hmm, hmm, euh, jur yi bari ñoo jël ci biti. ci of course ci tabaski ñoo soxla ci biti lay jógee. economically tamit loolu naka nga ko jàngatee year in year out buñ tolloo fii CFA bi dafa shoot up. Mhm. Euh, nit ñi soona mhm. euh, loolu tamit ndax nguur gi war na cee def benn taxawaay surtout central bank. Mhm. because pour ñu régler yu mel noonu ñu bari jàpp ne lii tamit dafa mel ni am na lu ci laxasu. ba tey buñ tolloo fii rek Gambien si dañooy sonna bu baax baax. Euh, loolu moom niñ nekkee di dem day continuer parce que at bu nekk day xew. day repeat xew mooy nit ñi. average Gambien askan bi. Mhm. liñ dee am seen aaneen is not enough pour seen dundin so mënuñoo plan leneen. xam nga nit ki comme sa mm. life comme lii ñu wax Mas Maslow theories of needs. comme nit ki bugga buggaam yi. am na first am na second third fourth fifth. Mm-hmm. first one bi mooy dunda. xam nga den am nga dunda den am nga fi ngay dëkkaa am nga lu ngay sol. xam nga comme noonu lay dem day am bëgg naa am kër den after bëgg naa am moto yooyu mujj la waaye bu nekkee ni basic bi foundation bi li nga xam ne da nga ko need mm. Mm. loolu you cannot go without that bu nekkee ne loolu manqué na doo mën a plan leneen man ak yow ñun yëpp dañooy plan ne waaw this year moom xar bi dafa seer mënumaa plan de waaye next year dinaa teel a jënd xar mm. waaye li nga am meeg it's not enough pour say dundin soo doo mën a plan pour am xar so nit ñi soo si situation boobu lañ nekk léegi economic system bi dañ ko hijack moo fi nekk. Mm. Eh, what they call state capture wala elite capture. Mm-hmm. mooy di elite. waaw di di state ñu nekk si kaw mooy ñoom dañ capture économie mooy ni ñu ko capture ñoom ak seen associates ak seen partners ak ñi ñu dee jëflante la mooy ne économique secteur bi ah area bii de moom baax na trop bari na profit waaw yow yaay yore loolu. dinañ meeg seen yow nga amee loolu. Mm-hmm. côté bii nii. dañ ko pàccoo baax na. Mm-hmm. waaw yow nga nekk foofu yow nga yore boobu man area bii man ma nekk foofu. man nag ak su may doom wala maa ak su may xarit wala maa ak ñi may jëflanteel ñooy contrôle fii yow nga contrôle fii yow nga contrôle ñun suñ fa nekkee ak suñ fa nekkut sax dañ bëgg a contrôle économie gis nga loolu moo xew India China ñu ngi compete Libanais yi ñëwoon nañ de wees small amuñu woon doole noonu waaye ñi ñëw léegi dee tout powerful India ay gis nga Europe dañ ñëwoon ak America comme tubaab yi di west mm-hmm. dañ ñëwoon divide Africa colonise ko fi mu nekk nii ñi nga xam ne ñu ngi jógee India ak China ak other countries dañ ñëw pour divide Africa te ni ñu ko lifinee rek ni ñu ko mooy contrôle suñu économie ni ko xamee rek nga seet suñu business yi nga seet majority of it mm. is control bàyyi bàyyi noonu demeen te li xew mm. mooy ne ñoom dañuy target secteur boo xam ne ok area bii nii daal bari na profit mm-hmm. ah ñu ne la ok yow ñu dugal la foofu so ñoom ñu contrôle so loolu moo fa nekk den am nañ suñ few people ñoo xam ne ñoom it ngi fa. so yeah. yeah all uh, ngi bugg a ci politique bi xam naa ne économie bi kese kese waroon naa doy suñu. waaw parce que am na yeneen yi nga xamante ne boobu rek fi ne bëggoon naa sax mu gis-gisam si semaine bi. recent problème bi <laughs> semaine bi sax just two two two minutes rek ma aati tuuti rek. soo demee anyway OIC bi lu ñu wees was a total failure. moto yi ñu jënd was a total failure because eh, jënd 100 moto yoo xam ne 6 8 million 10 million loolu moom noon ngaa tabax 3000 low income houses even 5000 low income houses si li ñu wax ne half of li ñu spend on the OIC xam nga OIC is another thing then boo ñëwee si semaine bi mm-hmm. eh, lii xeex la boo xam ne dafa nekk diggante eh, two groups import waaw ñi nga xam ne ñu ngay import locally ñi nga xam ne ñu ngay import locally from senegal Euh, importer yi ñi nga xam ne dañu ñëw import. comme am nañ seen factory. nga am local euh, product manufacturer si nga am Gasem. Mhm. then nga am di local. Euh, importers importers. waaw mainly from Sénégal. by the way mainly from Sénégal mostly Sénégal la day jógee. yeah exactly. te ñoom yëpp boo dégloo seen wax. Mhm. seen interest la gis nga élite si gis nga eco business people suñoo xëccante rek be very careful bala ngay teel a def decision. Ah, man I know a lot about importing from senegal dama doon génne foofu. li gars yi doon wax. Mhm. dangay ngay jëlee Sococim mu ngi fa Sahel mu ngi fa léegi Dangote eh, tamit mu ngi fa dañ dee jëlee foofu. naaw li xew mooy ne dañoo indi ànd eh, comme ciment bi ñoo jëlee Sénégal. Sénégal ñoom seen advantage la. Mhm. pour ñuy indi seen eh, ciment from Sénégal muy ñëw Gambia. waaye nag def dee help tamit in terms of the cost. Mhm. waa xam naa ne di border support dañoo ñëwee customs. dégg naa last time kii mu ngi doon wax. ne gars yi dañoo indi duñ dee fee juuti. niñ ko war and there is an element of truth to that dañoo indi léegi-léegi ñu indi duñ fay ni ñu war a fayee juuti waaw loolu waaye waaye non maa nga ñëw loolu def dee xew waaye loolu it's ah, not their fault because soo ñëwee mm. nga ñëw ak ten moto waaw nga ki nekk foofu alaaw la pour five bi mu dugal loolu moom laab si government la loolu waruñ leen a blame for that now but are they honest ñoom tamit to the to the country ñi nga non non non gis nga man moo tax moo tax ah. ma ne la is between business people moo tax ma ne la is between business people xam nga ma wax la ma wax la ma wax la tuuti secret pour nga understand. waaw kii day indi ciment ñëw si booda bi. Mhm. indi ten moto mu fay three or five kii import indi five thousand tonnes. Mhm. déclare two thousand tonnes fay si loolu so lan mooy différence bi. yeah. so ñoom yëpp they are all playing their games. Mm. ñoom yëpp they are all playing their games. ku nekk interest la gis nga business people. 90% of them, they don't care. They want to make profit, that's all. Mm. They don't care how they make it. So, they so don't care about you or me or Key. So, so, the fighting is between them. Yeah, so talking about this fighting, apparently the government has been accused and Nyungi side with the local manufacturers uh, to protect them. But this protection has led to some skyrocket of price scarcity no, of price mhm. there is this elite capture there is this state capture nit ñi seen interest la ñuy protect. at the detriment of the. citizens. waaw gis nga pour lii nii yëpp bul seete is interest of some people. is interest of some people it's not about me and you it's not about defending the Gambians it's about how to control the economy te soo seetee dip soo seetee dip di nga fa fekk a lot of things loo xam ne they they're very funny that is what I'm telling you kii mu ngi indi moto du fay duties yow yaa ngi import yow it yaa ngi. naan sa gaal waaw parce que ñi ñooy wax yëpp. xaw ma si gasem waaye nga seet ñi ñëpp noonu lañ commencé di indi from Sénégal ñoom ñëpp la. waaw dañ bàyyi laan lañ doon indi. waaw lan lan soo dafa mel ni yow yaa ngi yaa ngi doon indi. li nga def ba nga grow keneen ki tam di def the same thing. nga ne ko so it's as simple as that. they are all at fault. so waaye li may wax mooy ne. government stand on this as we speak. government is a failure it's useless government doesn't government seen interest rek lañ topp. mooy ne yow dañ bëgg a yow nga contrôle fii dañ lay jàppale. ça it's as simple as that. Not, not about protecting local manufacturers. No, not about protecting local manufacturers. what is within and, and, and I'll tell you something funny na Gambian si maag loolu. waaw soo demee yaa ngi jënd ciment is how many kilos. waaw ñu ne 50. 50 waaw do you know ne am na ñoo xam ne seen ciment bi is about 48 kilos 47 kilos. non non non 45 yes. Hmm. waaye de won't talk about that. no xam nga li thing is ñun as Africans we are joking te suñu te li may wax mooy ne suñ government is a total failure is a joke. dañ feel dañ feel nit ñi completely they are greedy they are corrupt they are carefree lépp lu ñooy wax rek bu ñu waxee rek seetaat ko bu baax bul teel bul teel def decisions check ko bu baax ba nga try pour honnête man avertissement bi mu ñëwee rek dama ko ceer rek ne ñii because man uh, issue bi xamoon naa ko long time xamoon naa ne ñuy indi bàyyi laan dañ dee indi indi ten moto fay five five bi du fay waaye xamoon naa ne waaye xam waaye xamoon naa ne wa wa waaw non waaye waaye xamoon naa ne waaw waaw waaye léegi kii indi nag tamit waa a déclarer ten waaw. because léegi waaw léegi waaye waaw loolu la because da ngay déclarer nga ne ku fay ki nga war a moom xam na ne ten nga indi de. waaw mooy bàyyi mu jàll dafa ko ne léegi déclarer naa tri seebin yi seetal nu ñu koy liggantee nga bàyyi mu jàll man ma ligantee. waaw kon dafa mel ni ñàkk a sérieux bu ma ne di wax moo fa nekk. ñàkk li may wax mooy ne. Mhm. xam nga you know human beings. Mhm. doomi aadama dañ dee copy dañ dee roy. waaw dañ dee bëgg roy. Mhm. bu nekkee ne ki nekk sa kaw sa njiit sa njiiti mooy su ma nee njiit bi from the president minister si nga ñëw directeur si nga gis koo xam ne yow dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mhm. kii liñ koy fay ak li muy def mënut koy def te óor na la ne yéen ay nit ngeen am ngeen xel mhm. xam nga ne kii njuuj njaaj rek lay def rek day korob day sàcca rek soo yow it you'll you'll careless fay ne da waaw lii moom is is the norm te loolu la nag ñi nekk si kaw ñu nekk di def mhm. ñi nekk si ron loolu lañ nekk di def ñi nekk si booda bi dañ gis ne ah ñi nekk si kaw ponkal yi lii lañ nekk di def soo ñu ne dañoo séparé. ok man fu ma bëggoon mu daanelee si loolu nga ma tuuti ma fàttali rek pour ñuy seetaan xëy na am na ñi nga xamante ne ñu ngi soog a yegg si ànd ak ñun ñu fàttali rek yéen a ngi ànd ak Africa TV seen programme bi di Good Morning Africa suba bu nekk dañu ànd ak yéen it's exactly 10:33 according to our studio clock and tey suñ guest bi ci jotaay bi mooy di PAP leader di honorable Ibrahima Tabora Mane moom lañ am fii tey ci jotaay bi di waxtaan ak moom ci gis-gisam réew mi ci wàllu hmm. économie bi lañ nekk ba léegi te uh, buñ toppee économie bi xam naa ne waxtaan bi. duñ dem politique parce que xam-xamam foofu la màccee tamit ci wàllu politique bi naka la gisee. surtout foofu foofu fu ma bëggoon mu daanelee si mooy ne rek. waaw fu mu nekk nii de ñu ngi woon lu ëppoon trop trop trop ñu fa. te soo doon wax président bi because pour mu eh, lan lañ waroon a teg pour ñooñu as far as dugg si nañ bi ba pare. te mhm. eh, xëy na propre investigation bu si waroon a am ak waajal gi. because ñi jënd yow jënd nga. ñu bëri dañ am deposit soo ko ya. ñu bëri seen bonus ñu fa. Mhm. so ndax période bu bu ñu leen jox pour ñu stop loolu mhm. waxtaan ak ñoom ndax am na foog nga ne def nañ ko ni ñu ko waroon a defee and secondly moto yi nga xam ne day already day ñu ngi waste time ay bagages yi baana baana leen mhm. ndax lan moo si soon sa gis-gis pour président bi tam jël loolu ñi ñëw indi seen semaine bi parce que du mën a nekk foofu rek soo lan nga doon te waxal nguur gi itam nan lañ mun a dimbalee ñooñu ba seen semaine boobu ñoo dugg si su fekkee ne denn la dafay yem mm-hmm. mu yem foofu bu fekkee den leen na ñu jëli seen bonus because ak seen déposit yi ñu am foofu soo yan yan maison nga fa ne la nguur war a teg pour loolu mu am uh, xam nga affaire bi moom société rek dafa mel ne comme fay out su nekkee ne nit ngay indi gaal mm-hmm. nga ne ko da ngay fay tati dalasis comme euh, luy luy toll 50 kilos ah, mm. nga ne ko tati dalasis ngay ne ko moom it tati dalasis la then all of a sudden keneen ki nga ne ko non du thirty dollars léegi yow da ngay fay eh, one eighty instead of thirty dollars te moom su indee kon du du mën a jaay because then day daanu dafa mel ni am na koy jàppale non dañu war a am tarif boo xam ne I mean is the same so li ñu war a indi lii mooy na dañ bugg a protect ñu ne local local local industry boo ko naree def ñii tamit war a ngaa seet angum seen interest ak impact bi ñuy am on the on economy ñaata nit lañ employ mhm. ñaata moto bi ko moto yooyu moto yi nga xam ne dañ koy dem transport ciment from Sénégal indi ko Gambie dafa bari lool so si liggéey boobu borom moto yi driver yi fita yi amin ñi nga xam ne laborers la ñu ngi wàccee di égal mu ngi leen di affect waaye li nga war a a def soo naree def loolu sax war nga ne la call constructive li ngeen am lenti discussion nga dégg ñoom it li ñooy wax because ñoom it boo waxee nañ la wax ne waaw yéen a ngi protect ñële te am na lu si nekk loolu tam nga gestu ko amin déglu ko bu baax waaye soo leen di stop sax li ñu war a def mooy jox leen period of let's say six months or one year ne leen ne dañ leen bugg stop parce que man man I am very patriotic dama bugg a pour defend Gambia ak Gambians industry mm-hmm. waaye it should be fair warta nekk waaw dañooy stop lii. Mm-hmm. léegi su nekkee dañ leen di stop yéen a local eh, eh, importers yéen ay produce léegi yéen soo leen produce naka ngeen mën liggéey ak ñii. Mm-hmm. pour ñu am parce que bu ñu jëlee ñi nga xam ne ñu ngi indi boo si bu ñu si génnee. léegi foog ñu dem seetaat lan la ñuy def. so te a te te xam nga qualité ñun tamit mm. isan isu xam nga am na ñoo xam ne you know ñun daal mm. xam nga am na ciment yoo xam ne day low quality nga ñun daal day a lot of things loo xam ne government war na koy def ah, war nañ ko si laa de xam naa ne yoon bii de moom yoon bii yoon OIC bii buñ koy defar mm. Sococim laa gisoon di gars di dajji te boo ñii ñiy defen ñu ngi fi seen ciment baa ma ne li ñuy wax ne Sococim seen ciment bi is low quality am na ñeneen yoo xam ne ñoo ko gën boo leen testé bu baax mm-hmm. di nga si gis an isu xam nga loolu propagande la rek moo tax comme nit ki oh. lu muy wax moo tax nguur gi foofu la waroon a ak ne yoon bi sax su mel ne bi waroon a liggéey nga ba nga amee good a lifin thank you very much léegi uh, que time dem na uh, of course uh, rek of course you must be aware bi demoon na toog recently ba ñëwaat sànq yam doon laal about the the health sector but dem na inaugurate ak hospital yu bari ba ñëwaat Euh, but you know li li li li coow li yëpp. mooy président bi def nañ loolu yëpp. but mm-hmm. kaddu yi mujjee wax kerewaat ba mu doon inauguré di bureau. moo instigate a lot of debate. within and outside the country. Mm-hmm. Um, kaddu président bi surtout lu gën a jur coow li. ba tey mm-hmm. gis nañ lu ci jur diggante ak moom ak UDP. ba arrest am si. li mu wax jëmee ko ci opposition bi bidig naar sort of word. Euh, xëj na yow am na noo ko gisee. waaw lu uti ak ñeneen ñi. Mhm. lan mooy mhm. sa gis-gis. non man xam nga bi ñu waxee bi mu waxee ne président bi bi mu waxee affaire bitiki naar man wax naa leen man suma interprétation ak suma gis-gis den mooy na rek président comme daf doon crack jokes rek. ne because eh, boobu façon nit la. te moom. Mhm. wax na wax wax na dégg nañ ko. ne moom politique am dafay toog. ne opposition si waaye foog naa ne bi mu waxee opposition si. waaw ñi mu doon rifaatu parce que léegi la xam nga nit ki su waxee rek nga xam ne kan lay laal. Mm. mu ne man damay jóg wax wax bu rëy. waaw su ma woowee wax bu rëy ñoom ñu nekk di toppa loolu buñ si nekkee rek man maa ngi si leneen buñ paree fàtte loolu rek ma waxaat beneen wax bu rëy. man noonu laa ko noonu laa ko gisee bi waxee waaye naar rek bi dikki naar rek dama ne kii is is jokkee am na koo xam ne sax mu ne ma ma ne mbaadu président déggoon naa ne fan yi mu ngi doon romba suñ boor bi de mbaadu suñ suñ bureau bi la doon wax ma ne leen ne non kii day day day caaxaan rek day jóg day jóg rek <laughs> nga xam nga mhm. nit yi nag seen interpretation ça different ku nekk nag yow entitled to gisee ko ni nga ko bëgg a gisee mm-hmm. ne bitiki naar xëj na UDP la doon wax waaye la ñuy ñu ne taalib sax la doon wax te in politics mm-hmm. pour ñu ñëw into politics mooy ne politician tam su gisee opportunity def see capitalize I mhm. mean because one dina ko jox coverage dina ko jox euh, exposure mhm. nit it nañ ko yëg so waaye ñoom it seen interpretation nañ ko gisee mooy ne daf doon wax UDP wala Talib la doon wax mhm. loolu is dem waaye xam nga NPP ak UDP moom rivalry bi is not only about politics now it's a real rivalry seen diggante dafa mel ni man noonu laa ko gisee because mm. ñoom i neen amin eh, dañoo nekkat di cookuloo even bi ñu waxee ne président mu ne nit ñi nañ xeex mm. comme ni tamit comme ne xam nga ba demee xeex eh, moom ñooy nguur bi leen di fen waaw man bi mu waxee ma leen ne président man bi ma ko doon xam mm-hmm. bi mu doon dem school ba wàcce school musta xeex du xeex kat day wax rek dafa bari wax wax bu rëy rek <laughs> waaye li mu war a def mooy ne li mu war a gëstu mooy moom kilifa la te kilifa nag booy wax mm-hmm. bi nit ñi commencé ba fi mu nekk ni is very te nit ñi dañ koy jël tout personnel te we getting close to election ba pare gannaaw loolu sax waaye moom kilifa la mm-hmm. gis nga kilifa war ngaa mën a jóg sax nit ñi xam ne yaa ngi yaa ngi yaa ngay jóg amin eh, waaye booy def war naa seegaat waxam yi seet li muy wax loo xam ne at least eh, do indi differences wala misunderstanding mm. among among people yeah. so ñu ne nag ñooy ñooy mature rek mm-hmm. dem above his level mm-hmm. su nekkee ne moom ñu ngi gis ne moom because man ni ko jëlee personally dama gis ne kii is a failure is a joke all right so man I wouldn't even waste my time on that mm-hmm. man li ma gën a yitteel mooy ne resources bi mu jël di ko spend on the top loo xam ne waroon nañ koo mun a dugal feneen eh, bureau yi mu wax ne bil na leen eight bureaus fan la jëlee xaalis boobu because xam nañ ne du salary. waaw non ñu ne political party bi ñoom ñoo ko def. parti parti parti supporters ñoom ñoo ñëw. Euh, gis nga waaw lifin ko. gis nga li ñuy bi that has nothing to do ah. with government. xam nga xam nga xam nga loolu moom. loolu moom loolu moom dañuy wax ne du xaalisi nguur. waaw eh, gis nga ma wax la président. tey waaw mbaa du xaalisi ku nguur dooleel tam. non tey ku ko may xaalis ku ko may xaalis tey. Mm-hmm. sa interest moo tax. yes waaw du Mm. man maa ngi ci ñun man opposition la. Mm-hmm. te mun naa la wax ñi nga xam ne ñu ngi dégg ne ay borom doole lañ am na ñaalis torop kenn jógewut kontaanut ne ma maa ne kontaan naa de <laughs> am mu ngi nii. te yaa si mu ngi nii jël ko <laughs> nga yokk ko sa politique. Mm. parce que yaakaar nañ li nga wax at least nit ñu ngi yaa ngi at least awaken nit ñi. waaw mm. déggu ma ko. te dégguma yeneen parti yi tamit ñi nga xam ne wax nañ ne li fi nañ waaye xam nga président bi jox la ñu ñu ubbil la comme government ubbil la an opportunity pour bunta rek comme li ma wax rek ñu jox la bunta nga meeg fa million nga meeg 10 million 20 million nga may leen 5 million amin obviously loolu amin naxaate rek la mm. xam nga loolu moo fi nekk mooy tax ma ne la state capture ak elite capture mooy ne damay seet yow bunta bi bari na profit bari na xaalis yow ñu jagleel la ko ñu jox la ko yow nga yore ko ngaa koy doxal ngay meeg sa million nga tabaxal ma lifin is in direct form of corruption. ok ok so waaye comme ñu ne tabax nañ eight bureaus. waaw bureau yi nga check bureaus si soo demee nga dem across the country di nga gis police stations yoo xam ne bureau bureau of sitting uh, government NPP moo gën certain police stations moto yi yi ñu am. moo gën certain moto yi nga xam ne police yi ñu ngi leen amee. wala military security ñu ngi ko amee. te I'll tell you just recently. my own sister mm-hmm. mu ngi feebar ñu yóbbu ko Ndembaan. Mm-hmm. mu dem si lopitaan bi pour ñu jël ambulance woo c'est problème. dañ toog de were waiting for a very long time xam nga ambulance bi mu ñëwee ñaata nit ñoo fa dugal lañ fa dugal five. Hmm? benn ambulance five nit di leen squeeze. because ambulance mënut a am yéen mënu leen a am ambulance for an entire community. ambulance yi ñu ngi manqué. soo demee si kaw bi da nga gis koo xam ne day day day omba pour mu dem benn tey it's happening in this country today in 2024 bu ñu am ambulance waaw di ambulance yi mu joxe woon parce que every community waaw et yooyu noonu waaw every community. tontu tontu woon ambulance ak all that. ambulance yi ñëw nañ motul six months sax ambulance yi ñu bëri sax am na yoo xam ne sax ñu ne paan nañ comme xam nga li may wax ñun we have misplaced priorities. government li mu war a def nekkut di def loolu for the country ñoom the party is building itself. ne nga am bureaus everywhere nga jënd di laan nga tabax very expensive maybe a few million dalasis police station si am na ñoo xam ne ñu ngi in very bad shape amuñ moto yu correct waaye soo demee indi bureau am na enough it is about government mm-hmm. ñu war a def government am na budget mm-hmm. allocated to different ministries whatever mm-hmm. but this is about politic and political party like any other political party and politicians ak militants well wishes Buga parti bi ñu ne ñom they want to learn from mistakes of the former uh, ruling parties mm. APRC maybe PPP mm. nekk nañ fi for 20 30 years ñu amé single bureau bi nga xam dañ ko mom so they mm. want to learn from that mistake mm. and their intention is pour ñu nekk ci ci ci ci nguur gi for another for, for another 100 years exactly for it's, possible. it's possibly so ñom dañ mu nga parallel sen bop so is, is, is that not something li nga xamante ni ñu war leen ko nangul as a political party d'accord mu no no no no because APRC ci nekk ne amuñ non ay bureau ba tay initiative bi police station yi si ci ñom ñoko fi indi. waaw but yeah lolu is about government waaw ok. you don't talk about APRC as a political party. balaa government. balaa lu moy ne. waaw government tay li ñu nekk di joy security waaw rayante within four weeks or three weeks ñaata. ñaata rayante nga fi dégg te lolou at ba at la nga ko dan deg so lolou fekke ne loolu yow. topoto loolu nga dem topoto sa bureau parti. wala sa parti. you don't attribute that. lolou non non am man balaa ngay topoto sa ah? parti topoto rew mi tax parti bi taxaw. ak rew mu nga am ni. niti parti sa parti bi nit yoy ñu nekk si kaaraange tay mu na am victime si yëpp amna nga am ne da NPP. Hmm. so balaa nga taxawal NPP taxawal rew mi mu strong. ne police station am moto am luñu wara am. security bi is better than NPP bureau mu baax. NPP constituent chairman ñi nekk ci jàmm den police bi amuñ moto. that's not correct yow president baru president bi ngay waxal wala president baru head of NPP ngay waxal loolu laa gëmul nak head of NPP ah? president baru benn ah? rek la ñaar du ñaar is a party leader non ah, man loolu moom gëwuma Gomu ay parti li ba léegi dafa am ñaari xaar ñaari xaar waaw léegi nag daf leen sol non man loolu gëwuma ko nag loolu ko difa di indi NPP bi boo xam nga li problème bi dem fi nga ne bu NPP waxoon naka sudu noonu police ñoo laa jël si ñoom xamul bu NPP ñoom président Barrow leen xam kon loolu du dëgg mm-hmm. président Barrow benn rek la mooy di président of the Republic of the Gambia ah. soo fi demee naam président NPP wax ko fi naka su du noonu lu teggu lu am na ni loo amee la ko duñ la ko xoolee nag bu NPP la wax de président bi rek lan la war a nga wax kon loolu boo ko divaay itam nekku fa. ok dem na na mooy mhm. man lu ma gëm mooy ne réew mi taxawal réew mi moo gën nga taxawal parti. parce bu am ambition la nag bu ñu ne dañ fa bugg a nekk yow comme noo ko waxee ñu ne hundred years. pour ah, réew mi waaw bugg a bugg la rek nag xam nga nit ñi nag. la rek parce que li xew mooy ne. bu nekkee ne nit la fal mhm. leen yow ñu fal la yow nga ñëw di liggéeyal sa bopp. Hmm. xam nga nit ñooñu dinañ am fayda. yaakaar naa nit ñi dinañ am fayda dinañ xam ne lii. Hmm. du lu jaadu du lu war. parce que bu nekkee ne da nga jël nit nga sànnil ko karta ne ko nga ilif ñu nga yore suñ eh, koom-koom. Hmm. bu nekkee ne moom koom-koom boobu lu si gën a bari daf koy jël pour développer boppam pour moom mu continuer di fi nekk ak ay nitam. yéen ngeen nekk ci coono yéen a war a gis ne loolu war a continuer ñun nag foofu fa la ñooy waxee ne balaa ñuy develop NPP dañu war a develop di eh, country gis nga soo seetee développement moo tax ma ngi lay wax boo seetee développement bi li ñuy wax ne comme eh, ñu ngi jox report ne Gambia grow na bàyyi so much mhm. nga seet bi NPP formé nga nga nga xayma ko ak government mooy réew mi mhm. nga seet réew mi lu mu grow ak NPP lu mu grow di nga gis ne NPP grow na ten times more than the country as ten party. times as a party ten times more than the country hmm. nga seet Wiyaz parce que NPP nga seet ki fa nekk bi ñu ko sànnilee carte fi mu toll woon ak tey fi mu toll is ten or hundred times more than li amoon balaa mu doon nekk balaa bi mu nekkoon président ak tey fi mu toll am na maybe moo than hundred times li mu amoon léegi bi mu formé di parti parti bi li mu am si moto li mu am si bureau ak li mu mun Eastern Times moo daan lii average average Gambian bi mun. waaye loolu soo waxee ñoom dañoo wax ne parti bi ci boppam ñoom seen. non li xew mooy ne xam nga dañoo yaakaar ne parti bi and the state and the two should be waaye bu nekkee ne da ngay jël resources of the state ngeen koy mun a am di ko xaajaloo di grow di parti loolu dafa nekk at the expense of of the masses. Mhm. parce que li ma lay wax mooy ne bu nekkee ne ambulance bi ñu ngi koy jooytu police station si mënuñoo am moto yu doy soldats yi mënuñoo am moto yu doy waaye di parti. can have enough bureaus fi ñu mën a dëkk as their offices. Mhm. yaa ngi leen mën a fay to is not an issue ñu ngi mun a am moto bu leen doy waay waay waaye kon eh, yow da ngay da ngay caaxaan rek. Mm. all right léegi final one maybe balaa ñoo dugal garme ci news newspaper rek mooy euh, ndax ndax nga gisee ok président bi wax bi tey. situation bi fu mu fu mu mujjee. Mm-hmm. Euh, arrest nañ ci kenn ak Ibrahima euh, Diba of course from the UDP ba tey mm-hmm. police bi charge nañ ko sedition na loolu yëpp mënoon naa ñàkk. non waroon naa ñàkk waroon naa ñàkk mën a am xam nga nit ki liñ laa criticise liñ laa criticise te président sax man li ma dégg même ñu ne kii li mu wax loolu moom dafa jarut sax pour arrest borom gis nga man li ma wax président yaas to up to am na two years ak lu tuuti moom li mu war a def mooy ne mu bàyyi defante bi. Uh-huh. mu continuer si liggéeyam. gis nga liñ ko sant moom su defee loolu mu try pour bàyyi a legacy a good legacy te nekka te di one thing loo xam ne président bi wala government bi ñu ngi ko amoon mooy dañ doon wax ne is tolerant loolu lañ doon wax. Uh-huh. man loolu rek laa gis loo xam ne area boo xam ne mun naa wax ne at least. is is is good is fair mun nga leen a jox at least a pass mark dañ doon wax ne they they are tolerant mooy dañoo accept criticism nit yi munoon nañoo wax mhm. duñ disappear waaye bu nekkee ne loolu boobu rek nga am loo xam ne mhm. could be a good legacy mhm. bu nekkee ne commencé nañ di dem di arrest di arrest nit ñi di téye nit ñi pour waxi politics parce que lii waxi politique rek la lii affecté dara naa ne comme président si tooyam moom wax na kii ñëw na tontu bàyyi ko rek dinañ ko faate waaye xam nga suy arrest nit ñi rek dafay tax coow yi bari wax yi bari amin division si bari soo def ko jarut man li ma leen a wax mooy nag waa ji nañ trop charges nañ ko bàyyi latin bi free muy wax lu mu lu mu bugg wax waaye téye bi moom is not good for him is not good for his legacy is not good for his party and uh, I mean uh, fu ñu munti dem eventually. Hmm. li ñuy def rek mooy bàyyi ko rek. all maybe we will finalize. Uh,